waa bëri naa kalaaf dug naa kalaaf. Mhm. waaw bi ma paree foofu dama jël beneen combat dañ deb bi bàyyi ma njoon. avant yooyu yi ma lay wax nii yëpp ci combat yi la. yooyu yëpp ci kalaaf. waaw après après kalaaf. après kalaaf avant kalaaf avant kalaaf bi laa laa laa yooyu yëpp ma lay wax. Mhm. Mhm. mais su tamit lan moo ko tëggaat. waaw njoon xam nga dafa nekk mbër boo xam ne su bëree. day neex su feccee mu neex parce que du moom li mu lay wax noonu la mel noonu la mel mu nekkoon combat boo xam ne combat di siècle la tamit nekk komba jànq parce que dafa bëri ak sama benn mbër muy Modou Awa. waaw parce que bàyyi ma ñoon combat yu bëri sax da dafa kaw gaa yi yu mu bon bëri mu bëreeg Gris 2004 match nul ak Gris Bordeaux 2004 man ma jël ko 6 kii 2005. 6 juin 2005 laa ko jël coow li bëri waroo woon a jël Baye Mandione dafa diis pourquoi nga jël ko mais boobu man xam naa ne nekk ci man xam naa ne man mbër laa loolu moo tax ma jël ko dara taxulul ma jël ko mais dama xam ne mbër laa moo tax ma jël ko bi ma ko jëlee coow li bëri na trop sama benn xarit Adama maa ngi koy nuyu ñu dajee Risis mu ne ma waroo woon a jël Baye Mandione même waroo woon a jël Baye Mandione parce que Baye Mandione Oh, dafa diis ma ne ko combat bu duree trois mois maa mën parce que bokkuñu nu ñuy entraîner. ndax parce que li may entraîner ak li muy entraîner bokkul xam nga euh, doole du diisaay doole du diisaay doole yàq la ak sidit. li ko. waaw te man moom dama dëgër moom. Mhm. mais développé ni nga toll rek noonu nga waaw parce que xam nga lan moo a loolu man dama nekk nit boo xamante nii man ni ma toll. noonu laa bëgg a toll mais dafa am yoo xamante ni boo ko fi jéemee yokk sa bopp. jël ay affaire ay doom wala nga pikiiru. am ah bari na ci mbër yi yow ban mbër nga nit sax laay wax nan nga mën a nekkee année bi nga nekk cent cent kilos. année année bi dellu si nga mën cent dix kilos loolu mënul nekk. noon soxna si man hamburger ci mbër yi ko njëkk a lekk fii laa bokk. Mhm. man bi may lekk hamburger sama classe benn lekkul hamburger. man dama dëkk xolu ndakaaru fii. te fi la affaire yëpp nekk. ah du ne nante laa de mais du hmm. mhm. euh, ngaaka. ndax gis nañu yow après da doon hmm. hmm. toj. ba nga paree si Baye Mandione. après waaw bi ma paree ci Baye Mandione. dama jël baabooy. waaw parce que boobu man maa fi te liñ naan yaa fi mooy tax a parce que baabooy dem na ba man dem naa ba amatuma sama booy ku ma bëreel ci booy yi sama classe. waaw léegi baabooy ma lukkeeku nag daan booy kayre daan su lay doob xam nga daan lang saane daan dam sugeer pourquoi pas du ma bëreeg baabooy ñu ne ma baabooy man leen pare naa pour bëreeg moom. 2006. Gaston moo ko tegoon. Mhm. moo ko tegoon. combat waaw combat bi ñu ñëw stade ñu préparé nag am ci doole lool ci combat bi mu ñu ñëw combat bi mel na yomb lool ci baabooy yomb waaw parce que daf ma daan jël bu yomb la ma daan te man boobu euh, toog naa deux semaines deux semaines combat entraînement kenn mënu ma daan dama doon teg xaalis sax ne leen ku ma daan jël mais ma ñëw combat mu yomb trop parce que ñun ñaar ñoo njëkk a bëre ci synthétique bi Demba Diop maak Baboy ñoo fa njëkk a bëre mais man stratégie bi ma tegoon après avant le combat dama leen bàyyi leen ma xeex ak Baboy xeex bu gaaw. dal ci kawam jàpp ko parce que baabooy moom ak nu mu mën a mel ak ku mën a doon boobu su ma ko jàppee dama koy daan parce que lu ma gëm la te lu ne ci man la te maa ko dàq bëre. baabooy. maa ko dàq bëre kay. baabooy maa ko dàq bëre soxna si. ci mën a bëre. xam nga gaynde ak mën a bëre bokkul. baabooy ñime na lool mais maa ko dàq bëre. Mhm. baabooy daan la ma. bi ma baabooy daanee nag. ma toog Gaston ñëw ne dafa bëgg a def benn euh, dafa ma bëgg a teg man ak Ousmane jóob bu caaro yi waaw Ousmane Diop bu caaro la euh, waaw taayoo taayoo la ma baabooy daan mu ñëw ma dafa ma bëgg la bëri ak Ousmane Diop mais bi may bëri ak Ousmane jóob may bëri ak Ousmane Diop euh, dama ne ci biir combat bi ma am problème gaañu ma gaañu ci combat bi su ma gaañoo ci combat bi nag. après ñu ñu renvoyé combat bi léegi nag Gaston bi nga xam ne moo teg waaw dama amoon blessure loxo lii parce que sama loxo dama dañ ma am lañu ma sànni woon ma toog waaw mystique la koy ah, waaw korte waaw korte bi ñu ma sànni woon waaw dugg naa fu ne faju naa fu ne xam nga waaw li yàq sama làmb loolu ci la gën a bokk parce que man comme mbëru loxo laa gaa yi xam nañ ne loxo laay bëre sama loxo yi lañ laal laal mbër bi waaw xam nga rek. comme bëri nga ak mbër yi bëri ak mais mais tamit xam nga tamit loolu. Ah, Mbaye Diouf dama bëgg du def ci benn kii parce que yow nekkatoo n'importe qui. Mhm. def nga fi lu nekk. Mhm. mais loolu noonu boobu ñu la sànni. Mhm. dafa am loo xamante ni dafa dëgg carrément dafa mel sax moo la wàññi xàmmeetuñ la mais loolu après nan la demee ak faju beeg yooyu. waaw dama waroon bëri ci combat Tafa Gueye ak Yékini ci laa waroon bëre. léegi bi ma waree bëre ci combat Tafa Gueye Yékini bi ñu ñëwee naa ko nag parce que bi ñu ah, bi ñu bi ñu defee signature man ak Ousmane Diop ba pare maa ngi ñëw sama kër ci ci étage bi laa nekk quoi ci kaw timis di waaj jot nii ma ne ah gars yi xaal ma dugg ci néeg balaa ñu may sànni dara parce que timis waaw xam nga ñun ay séeréer lañ te Juuf lañ sant ay bete bete lañ tamit léegi bi mu demee noonu nag après ma ne ah xaaral waaye benn benn saaru gunóor ñëw na naa eh, après laal sama loxo quoi mm. mais bi mu amee deux jours nag affaire bi di def nii daal. xam nga maa ngi dem entraînement ne ci combat bi tamit boobu maa ngi ci combat bi di kon di dem di dem di dem mais dama dem boo am naa entraînement am naa doole lool rapidité bi ñëw na gaawaay bi ñëw na lépp ñëw na mais xam naa ne mënuma ci bëre gars yi sax dañu doon ñëw may saalal ma leen damay bëre ji affaire yooyu boobu xam nga rek maa ngi leen di confiance bi laa leen di jox ko mais xam naa ne du bëre ji suuru combat bi CTO la ma fekk CTO la ma fekk. baabooy ak euh, euh, Tafa Gueye ak Yékini bi muy bi ñuy bi ñuy bëre maa ngi toog CTO di leen seetaan te ñu opéré sama loxo. Mhm. est waaw xam nga ñi daanaan yi daal moom duñ def loolu daanaan yi dëggantaan ñun xam nga bëre lañ xam dañ dañ cee yaru quoi dañ koo mën. lu ñu jaral leen dañuy xam ne bëre la quoi ñun jàpp tànk wañ deb col laal li fàqat deb col laal li fàqat yooyu lañ xam dar ñaari tànk ñun loolu lañ xam quoi. mais hmm? xam parce que ñu bari mystique hmm? hmm? mais est làmb jar na comme mystique bi ndax da nga gis parfois mbër di def nit gis nañ sacrifice mbër di def lii nit nit xam nga dem ba benn instant sentir boppam lépp làmb mais yow tey loolu nan nga ko gisee. waaw xam nga man loolu duma ko def. man daal dinaa ut ay muslaay man dinaa ut ay ay muslaay yoo xamante ni sama yaram la mais man dama di jullit te làmb day paase mais am na yoo xam ne man am naa fi combat ñu laaj ma ne ma utal ma yaxu nit mais loolu xalaatuma ko. yaxu waaw. ko la. ma ne ko ma ne ko waaw mais xam nga la ngay def yow loolu moom mënu ko xam mais boo ko nee waaw moom day xalaat ne yow di ko am di ko wut. mais dama ñëw ne ko ne leen loolu duma ko def xalaatuma ko sax. defuma ko sax xalaatuma ko def. waaw mais loolu duma ko def dara jaraluma ko. waaw boobu maa ngi bëre ak euh, kan laa doon bëre euh, Ousmane Diop la waaw Ousmane Diop. waaw hmm, waaw. waaw xam nga rek. Euh, hmm? dama dama dama def année blance toog naa trois mois vingt 25 jours di faj sama loxo. Hmm. dem ci maaman yi nag ñuy lugg jaan sax dem naa ci ñoom. ñu wàcce tooke bi. Hmm. fu ne dugg naa fa. yàlla def nag xam nga bu sa yaay liggéeyee rek ak sa papa. yàlla def nag après affaire yi wàññeeku quoi. après nga bëriwaat ak Ousmane Diop. ci la ma daan ci biir galaa bi. bi ma euh, Ousmane Diop daanee nag ma toogaat préparé Coly boo xoolee sama combat ak Coly ak sama combat ak Ousmane Diop dafa am différence. waaw parce que ci Coly laa gën a nekkee. parce que dama cee entraîné. mu mhm. ci entraîné entraînement yu baax. yaa ngi dégg nekk ci en l'aise xam nga mhm. ma ñëw comme Coly Faye bërekat la moom tamit ma gis mu ni mu bëreek Balla Gaye mhm. day xeex xeexu patam patam la xeex Balla Gaye ma ne gars yi may entraînel ki euh, qualifié bu xëy ak nii man dama koy door mu daanu ñu ne ma amoon ah, daal ma ne parce que combat bi du ma ci arrière damay dox ci kawam elante woon mu door ma ma daanu sax mais damay xeex ak moom bu def bu xeexee xeex boobu damay xeex moom heureusement mu ñëw xeexul xeex boobu quoi te moom dafa ma xam parce que dama ko daan gore. moom mhm. xam nga daf ma xam ma daan ko gore léegi bi mu ñëwee ci combat dafa dafa changé nu mu doon bëree dafa ñëw taxaw. après ci laa xeex moom dóor ko ay coups yu métti touché naa ko ba mu def kaw bu sax xam nga mu génn saa yu ñëwee dama koy damay dox ci kawam xeex ak moom mu génn après bi ma sooboo nag songi ko mu teg ma mboot ma ma yónni sama loxo ma gaañuwaat ci loxo encore. Mhm. mujjee ñàkk. ma ma mujjee ñàkk parce que dama yónni sama loxo ci ngémbali bi ma ko téyee dama ko dóor ku yu métti ba mu gaañu ma téye sama loxo ci li mel ni dama benn woñ dafa ne sama loxo quoi ma def nii pour yaakaar ne dara la quoi. yónneewaat sama loxo nii pour téye sama loxo fonctionné wul quoi ma xam ne gaañu naa mais boobu tamit moom dafa gaañu parce que dama ko gaañ dama ko dóor ay coup ma ne arbitre bi xoolal kii gaañu na arbitre bi atte combat bi dali ko ne demal faju ji après ko li fay dem faju ji quoi man tamit ma xool sama loxo arbitre bi gis ma ne ma sa loxo dafa yow da nga gaañu de ma ne ko noo gaañu ma mu ne da gaañu dal ñu après ci la ma ardo xool ne ma mënatoo bëre quoi jox ko victoire moom ko li mais suur boobu moom mënu moon daan Mhm. ndax la parce que dama xam ne mënu daan parce que dama mën a bëre ba pare dama am doole ci combat bi. ok boobu moom mm, mhm. waaw sama combat ak Balla Gaye ci biir kii boobu laa ko jël ba léegi rek ci la bokk ci kalaaf bi la. waaw xam naa Balla gay seetaan naa ko. waaw ndaanaanal bërekat la. ne ko combat bu ma fonk la woon. Mhm. respecté ko loolu mais ci biir combat bi ci laa amee problème mu loxo ci laa amee ay blessure xam nga moom mu continuer ci calaf bi après ñu jox ko kolifa ki euh, isaapu yi Gaston teg ko mook isaapu yi avant ñuy bëre man ak moom. Mm-hmm. kon dama am dama man dama dama am blessure deux fois. parce que bi ma blessé noonu sax bi ma amee problème mu corde bi dama gaañuwaat ci loxo ñu band sama loxo ma toogaat la même chose ay trois mois bala gay nekk en les ñu jox ko kolifay non ñu jox ko euh, kii euh, isaapu yi bi muy daan isaapu yi bi muy jàpp ci ngem ni di ko xàndal waaw boobu fekk ne ñu man ak moom bi mu paree préparation boobu mu pare ci ko euh, kële isaapuy ci la bëre ak man. waaw non parewu ma. parce que ni ma ni ma ni ma ni ma war na paree parewu ma ni. comme waaw pare woo Balla moo la gënoon a pare. Balla moo ma gënoon pare ma gën a nekk en les parce que boobu am na combat fay nañ ko 11 millions. mu ngi xaay. Mhm. te man boobu kalaaf laa nekk gaañu naa. kalaaf bi am na combat yi bëreeguma ko mënuma jot xaalis bi. ah waaw waaw parce que Balla bi ñuy avant bi bi ñu nekkee ci kalaaf ñun ñoo tolloo jot. mais après ci biir combat dañ ko joxaat komba combat ak Issa Pouye fay ko 11 millions. Mhm. léegi man ci galaa laa nekkoon. moom nekk na ci galaa ma nekk ci galaa mais après ci biir galaa bi man dama gaañu def année blanche mënuma bëre parce que dama gaañu léegi moom ñu jox ko euh, Issa Pouye fay ko ci xaalis comme préparation bi mu bëreeg isaap yi ba pare après combat boobu la continuer nag ak man. préparation boobu état de form boobu mu nekkoon ci la continuer bëre ak man ci la ci sama combat ak moom ñu taxawal ko Gaston teg ko encore. waaw avant daan bi sax euh, combat bi dafa nekkoon combat boo xam ne combat bu ma respecté la woon bu ma fonk mais après dañu nekkoon ak Saal sama grand frère la maa ngi koy nuyu ñu nekk euh, force tranquille di ci liggéey di ci liggéey après ci la demee Fass. mais mu delluwaat Fass waaw parce que waaw boobu damay wet ci sama bopp parce que moom ma gën a nekk mag ji làmb du weetu ñàkk mën a bëre sax mais xam nga bu la euh, koo xamante ne daf la sës bu am na noonu bu na demee rek yow da ngay nekkaat euh, beneen kii daal xam nga. dama àndaat ak moom dem Fass dama ko fekkiwaat. après waaw mais bi ma fi ma ko fekkee ak fi ma bëree dafa jege ñëw weer la. ok presque ba ngay bëreeg Balla Gaye ci fan gi rek. waaw mhm. nga bëreeg Balla nan ngeen bëreeg yi ñoom parce que ndaanaan nga. waaw mu nekk ndaanaan. Mhm. mu nekk ndaanaan. Mhm. ci yéen ñaar ñëpp rek ay super ndaanaan. waaw mais combat bi ñu gis nu mu waaw sama combat ak Balla dañu ñëw stade bi ñu ñëw stade euh, ki nga xamante ni moom mooy moo yor sama cumikaay Thierno Thierno Gueye. Thierno Gueye bu Balla Gaye. non non du Thierno Gueye boobu de Thierno Gueye bu Faas. ci nu jóob Diop nu jóob bu Faas moom moom mooy sottil parce que sama cumikaay yëpp moo xam nu mu demee parce que ñun ñun ñoo ko dox ñu teg suñu cumikaay après ñu dem wéri man ànd ak Balla Diouf ak Oussa mais après dañu tourné rek Balla ne ma am na lu xew ci cumikaay bi. Balla Diouf Balla waaw après bi ñu demee cumikaay bi nag fekk Thierno Gueye tëdd ñu jam ko fii xotti deret ji sangu ko quoi. waa waaw sama komba ak moom waaw moom lañ def loolu. ba pare samay butéel lépp daanu yëpp tasaaroo. waaw parce que Balla Gaye moo jógee ci otoom la jóge def direct ci sama cumikaay ànd ak ñoom Elton ñu bët samay sabar encore ñoom Baye dem ba ñoo ma doon tegal mu bët sabar yëpp. waa noonu la deme ñu bët sabar yi samay galaaj yëpp yàqu sama lépp am samay butéel yi ma fekk ñu tuur ay sama siwo yeeg yëpp sama sabar yi ñu bët ko. waaw parce que. waa kii CNG oh, CNG ñu ngi woon di xool ñu ngi fa woon di xool xam nañ ne Balla Gaye ko def parce que ñoom ñu ngi ci kaw. bu non am na staff dafa ñëw ne day jaar ci dama diggante cumikaay bi ak miir bi te foofu mënu fee jaar métul un mètre métul un mètre mënu fa jaar loolu xam nga ne am loo bëgg def la rek mais du question dafa bëgg a jaar sax léegi bi mu demee noonu nag gars yi ne ko doo fi jaar mu xàcc be jën ñeen ñi doif ñen ñi kii xam nga. mu xàcc Thierno Diop nu Diop kii taxaw mu laal ko ñu bët samay sabar noonu la demee. waaw parce que parce que combat ba mën naa ne xëy na du question ni que sax boo ko waxee dañ ñaan parce que samay gàllaaj yàqu na loolu moom waxatuñ ko xamatuñ ki may sottil jam nañ ko ba ambulance bi téye na ko. bi ma demee tiim ko ma ne mais lii nag Père Mbaye Guèye dama euh, Balla Gaye moo xiiti laal Thierno quoi. après nag moom moom war a sotti moo xam affaire yi ma jaxasoo xamatuma butéel yi muy demee man daal dama doon jot di sànq di so xeppoo rek. arbitre bi sifflé ma ñëw ñu ne ma euh, am na benn trait boo xam ne ni mu ci stade bi ñi nga xam ne ñooy football ñoo ko fa def trait boobu nga xam ne moo ne ci digg bi ci rond central bi noonu. Mm-hmm. ñu ne ma bul jéggi ret bi quoi parce que ñi ko jéggi ñëpp bala da leen a daan. après ñu ne bi trait bi bu ko jéggi. waaw parce que soo ko jéggee fekk si ko da lay daan. bu ko jéggi parce que ñu ko jéggi ñëpp da leen a daan parce que bala boo xoolee am na temps yoo xam ne day xaar nga jëkk koo dox mu dog a bëre léegi nag dama dep dama déplacé wu bi ma déplacé woo nag après mu dox moom tamit léegi bi bi nga xamee ne déplacé na bi may songi dama songi mais yéegiwu ma mais bi may génn xalaat naa ne yéegsiwul moom mais dama dama songi nii di génn mu def gauche droite gauche parce que mbër booy génn. su fekkee da nga sóobu booy génn dangay ngay génne en garde soo génnewul en garde mën nga jël coup péré te da toog mais dama dama dama sóobu ni ma sóoboo baaxul bi may génn mu def gauche droite gauche ma génne kuy ak sama loxo ni ma génnee kuy ak sama loxo li ma li ma génn dafa bari mais dama faa bàyyi sama tànk après moom mu wàcc ci la ma daan quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Balla Gaye daan après ka waaw bi ma Balla Gaye daanee ma toogaat encore. Mm-hmm. toogaat oh, ñaari at bëréwu ma. boo xoolee comme suñu caar yi boo nekkee ndaanaanal bërëkat say combat dafa war di jege ñoo mais bu dul jege ñoo rek day am lu mu wàññi ci yow lu baree bari waaw parce que Mbaye ah, doon toj ñëpp hmm. hmm. xamoon la tamit. am ci yow yaakaar. Hmm. nga dem ba benn instant du chuté. Mhm. du chuté ñu ne. Mhm. mbay mhm. succès bi. ak xale yu jigéen yi. ñoo dem ba benn instant. dagg carrière am. mu xale yu jigéen ñi si la mbay topp amatul état de forme. yooyu yëpp jëw boobu déggoon nga ko. waaw xam nga boo siiwee rek. xam nga ku siiwul sonul ku siiw moo sonn boo siiwee du nga dégg lu nekk. nit dina benn journalam sax waxal dara te ngir bëgg a jaral rek moo tax parce que xam ne lu laal ci yow bu ko laalee day doxle man dama nekk mbër boo xamante ni dama dëkk ci digg ndakaaru Medina foofu laa dëkk falaa laa defee mbër fa laa commencé tàkk nga mbëre te mbër fii ndakaaru moom boo bëggee siiw rek ñëw fi parce que dañu bëgg nit tamit euh, xam ni ñuy def ba euh, seen nit siiw quoi man dama dëkk Medina di toj mbapat yeeg fépp ñu xam ma bu baax mais lu ñu ma xam-xam-xam kenn mosul dox gis ma ma ànd ak gel mais amoon nga ay tentation xale jigéen yi di mais attends man man fan si club jigéen laa amoon man maa ko njëkk a am bawol ba mu daj maa fi njëkk am fan si club man dama amoon fan si club bu am doole ñoom Mama Ndiaye di ko jiite ñoom Kewe Ndiaye di ko jiite. maa ngi nuyu euh, Pa bu baax a baax ak ñoom Mbacke ay ñoom Simeer maa ngi leen nuyu bu baax nekk foofu nag am fan si club bu dëgër bu am doole am ko sàndaga fii tamit per moo duggee maa ngi koy nuyu bu baax mu nekk ci di jiite fan si club bi foofu. Euh, xam nga boo siiwee rek mais man mu kenn mosul dox guddi gis ma ma ànd ak gël amoon naay gël nag parce que du ma fen boo am na noonu boo ni melee nekk booy di faw nga am gël parce que benn da ngay rafet kaar di sol lu rafet am succès foo taxaw nit ñi di la xool gël yi dañ lay nopp te yéen da ngeen a xaw a sob du ngeen bàyyi nit lu nekk. lu nekk gis naa lu ne may nañu ma xaalis bu ne jigéen may na ma xaalis bu nekk. yaa ngi dégg tamit xaw boo déggee may na ma xaalis bu nekk man dama doon toog jigéen ñëw di ma seet lu met un mois du ma gis parce que boobu samay téléphone man du ma ko yor wuli un moo ko doon yor. mais mënoo ko ñàkk a dund waa dëggal soxna si waaw mais attends attends xam nga dafa am loo xamante ne mënul ñàkk. Mhm. am na noon boo ni melee jigéen ñi xam nga lan la ñu tey jii tey bu caaf sax bu nekkoon fee caaf ñu ne caaf lee caaf lee caaf lee jigéen ñi dañ fay wuti. Mhm. yow xam nga lu ma lay wax am xam nga yéen moom fo côté boobu moom namu leen ci lu bari. non du question ak jigéenam. parce que tey yow sa xarit ah, Baye Diouf ah nañ waxante ngay toj di daan champion bu nekk daan fee ma seen bu rek ak ñoom Balla Gaye ñoom ñëpp xale jigéen ñi ñu sa carrière ci lañ bokk Baye Diouf. parce que non man benn jabar laa defal ndànk. man mais mais xale jigéen moom nekkoon nga ci. non bi takk jabar jotee dama tàkk jabar. mais jigéen nekkoon nga ci succès yooyu yaa ngi ko doon dund. non boobu. duma la ne xale jigéen ñi ñu ngi ma doon seet si laa la wax xam nga junj doy na borom xel am na foo xamante nii du ma du ma du ma dajji paquet xam nga du ma ko dajji waaw waaw xam nga rek boobu siiw naa am naa caaj aussi nit ñi xam nañ ma lool mais jigéen ñi il faut ñu lay wer diw diw diw di la seet xam nga rek xam nga lu ma lay wax mais mooy loolu quoi yàquñu ma nag parce que man xam naa sama bopp xam naa fi ma bokk tamit yàquñu ma moom te ñoom ku ma ci dégg di nga xam ne yow mii yàqoo Mbaye Diouf waaw mais après tamit ba nga fayee nag. Hmm? ñoom ñu kii la nu mu tudd sa succès. Hmm? après bëreetoo daanutoo. waaw après ñoom gisatoo leen. waaw xam nga loolu day am. loolu day am. sa carrière mun na rafet ngay daan di daan normal wala nga ne ci football di toj di toj mais na nga meloon bi ngay toj mais noonu dootoo ni mel day wàññeeku waaw. après ñu gis ne euh, ñu bari ne da nga dugg écurie Fass. Hmm? nga waaw parce que foofu à chaque fois dama koy wax di ko wax di ko wax di ko waxaat Fass dama nekk ak ñoom ñu doon nit ñu baax bëgg ma lool ndax yaa ngi may dégg ma nekk fa benn booy boo xamante ne nii booy bu am talent parce que mën naa ne mosuma fa am defet mësuma fa am defet di teg entraînement yi ci yoon du ma tardé entraînement xam nga lu ma nekk ñoom dañ koy xam dem na ba ñu doon wax naan raku Tafa Gueye la dégg naa ko lu du jeex. xam nga lu ma la wax ñu bëgg ma trop man nekk ak ñoom Gris Bordeaux ñoom Oussa Sow xam nga ñoom Papa Sow ñoom Batika ñooñ laa fa nekk ndooloon ay ñoom kii Brésil. ay ñoom. doo fa waaw mooy li ma la wax rek. non dama dem ba ci biir xam nga rek suñu mbokk yi xam nga mbokk dafa foor am na am na noonu boo na demee rek dootoo gis kenn say mbokk rek ngay gis. waaw ñu ne ma ñëwal saal génn ñëwal gënal gënal. bool bool hmm? mais Mbaye Diouf doxut moom tamit dafa fay. Hmm? Hmm? mais ba léegi. Mbaye Diouf doxut lan moo waral loolu. waaw mooy li ma la expliqué sànq xam nga tey combat soo toogee deux ans bërewoo wala ngay toog at bërewoo dalay xaw a jàpp. xam nga par rapport justement ñun ñi nga xamante ay mbër yu du ñu mbër yu ndaw quoi mbër bu mag boo yorul xaalis xam nga man tele laay waxee man lu ma lu ma lu ma wax rek du ma ko ragal boo yorul benn somu xaalis bi toog année blanche bëréwoo day métti parce que ñun ñëpp ku ciy ut ci làmb ji yëpp xaalis doo ngay wut mais boo toogee benn moment boo xam ne un an nga toog mbër yu mag yi sax ku ci toog un an da ngay lase waxatuma laa ñi nga xamante ñu ci xaalis laa la wax de boo buñ la fayee cent boo toogee un an bëre wala deux ans da ngay lase mais comme ñun ñi tamit la même soos soo gëjee bëre da ciy feeñ. loolu noonu da ciy feeñ. kon da ciy joué bu baax waaw waaw ay parce que ñooñu ñooñu tamit euh, damay ñëw foofu tuuti. Mm. parce que man dama nekk mbër boo xamante nii am na loo xamante nii bugguma koy wax alaatele parce que dafa doy waar. mais man combat yooyu ni ma ko jëlee baaxul. combat bu ci nekk ni ma ko jëlee baaxul mais mënul ñàkk lu mënul ñàkk nag faw mu am. muy ah, parce que sama combat ak armée jël naa ko jël naa combat bi am ci biir combat bi problème mu xaalis parce que sama combat Modou Dia ñoo war na bëre man ak Modou Dia ñoo war na bëre. Ah, Assane Ndiaye moo ko tegoon. ñoo war nañu bëre après ñu toog Modou ja bërewul ñu dem ba déwén sa Assane Ndiaye ne ma armée laa lay jox. mu nekk combat boo xam ne boobu armée amul combat man lay bëreel dañ ko jox avance man ma continuer ci comme avance su ja bi. Hmm, bi ma paree Modja ba war a bëre ak moom bërewuma ak moom hmm. dañ ma ne armée lañ lay jox déwén dañ la ko mën a jox comme saison bi waa ji jeex nii rek hmm. après ci laa jël armee quoi. après bi ma bëreeg armée ci laa bëreeg euh, kii Alioune Seye Junior waaw. mais Baye Diouf ku ci bëgg a yëg parce que da naan Baye Diouf palmarès na dafa baax hmm. loolu dafa am booy naan damay bëreeg Baye Diouf yëpp pour ñi nga bëree hmm. nga ñëw hmm. fi indi fa loo xam te ni macha allah ñu bari sax fooguñu ko woon combat boobu noonu tam mën nga nga jël armée jaat Alioune Sèye Junior pourquoi booy nga jël booy waaw parce que man du ma jël booy bu booy boo xam ne defu fi dara man boo gisee mooy bëreeg booy rek day nekk booy boo xam ne def na fi dara ba pare yaru ndax yaa ngi may dégg bi may jël euh, Alioune Seye Junior man combat bi mu desee cinq jours ci laa jot avance. Uh-huh. wallaay il asim ku yàgg sa bameel billaay wallaay bi ak tamit euh, tamit Mbaye Diouf ñi nga xam nga xam nga dafa am loo xamante man bëgguma tas yaakaaru nit. parce que tey man xam nañu ma xam goo xamante nii bëgguma kenn ñëw di ma jéppi wala nga ma naan mbay li nga ma def. mais combat boobu promoteur bi ko teg sax xam na ne ni mu ma joxe komba bi baaxul te yow damaa ñëw woyef wone fa ngor ak jom ak fula ak fayda ba luy am am xam nga mu deme loolu la quoi mais bu fekkoon ni maanaam joxoon na ma sama xaalis global ma téye kon mun na bañ a demee noonu quoi waaw noonu waaw. jox ma Mbaye Diouf. Mm. peut-être gars yi ne lay Mbaye Diouf. la mm. fa nekkoon. Mm. nekkatu fa. parce que Mbaye Diouf amatul fit. entraînement bi. Mbaye Diouf léegi day kii amatul fit bi day dem. mais tey euh, est-ce que tey booy nekk euh, tey da ngay relancer sa carrière. Ah. pour may booy chance. Ah. wala tey ah. ngay kiiwaat euh, pour ñi ci kaw. waaw man maa ngi ci booy toujours maa ngi ci écrit bi toujours di entraîner. mais bu ma gisee avance damay bëre. ok. Mm-hmm. pour may booy chance. waaw booy mais nag du n'importe qui laay bëreel. parce que man booy boo yar boo yaroo rek am mun naa bëre ak yow boo yaroo te mu leer ma ne def nga fi dara mu naa bëre ak mais man li ma mun ki ma munul bëreel mooy ku réew parce que man sama dara bokkul ci réewande. Mhm. Euh, Mbaye euh, instant bi gis nañ ni làmb ñu bari dañu dafa commencé féete boor te gis nañ dafa am ñu nekk ci kaw am na ñoo bëreel. Mm-hmm. ak ñoo ci bëreelu waaw tey nan nga gisee ñi nga xam te ne ñoom nekk ci kaw euh, dañuy njëkkee surtout le cas de mm-hmm. gisoon nañ la nga ci wax mais Tapha ni mm-hmm. gisee loolu waaw euh, ni ma gisee mooy Tapha dafa neexul maanaam bëreeg moom neexul parce que poids lourd la géant la gori la te it bu la jàppee moom du la may dara ndax yaa ngi may dégg boo gisee gars yi di ko moytu yëpp loolu la daaw avance am taxawaalu na fii yëpp kenn jëlu ko ñàkk koo jël bi yëpp ñàkk koo ñime la rek mais lu mbër di yor nekk na ci moom wala lu ko raw te fi mu toll ci làmb nii dañ ko dañu war a bëreek moom far force. mais la deger Guiers mën na bëreek moom bala gay mun na bëreek moom Modou Lo mën na bëreek moom pourquoi pas. Lac de si. combat bu neex. te jël day am. jël day am ci kan. ñoom ñaar bu ñu bëree dañuy daanante far force. waaw. est-ce que avantage bi mën naa nekk ci kii. ci tafaatin ci la ci tafaatin bu baax. bu baax a baax a baax. Mhm. Mhm. avantage bi la nekk. ci fépp. bu ñu xeexee avantage am la bu ñu bëree avantage am la. Lac de Guiers mais ñun namuñu loolu Saala Yandeer namuñu ko ci xeex. bërikat la waaw même la même chose bëri tamit namuñu ko ci. Uh-huh. Mhm. mais dafa it gisoo ni staff euh, dafa xaw a manqué tuuti ndax gis nañ ni euh, combat am bi waroon naa fekk ma kii bu yàgg gisoo loolu tamit ndax gis nañ ni sax yaa ngi doon fan yii yaa ngi doon ne Tapha Tine yow njëkk a wax ni sa combat ak Balla Gaye day taxaw. waaw man maa ko njëkk wax. loolu fan nga nekk treize. Hmm? loolu waaw xam nga ñun dañoo làmbe ñun moom ay mbëri làmb lañ ñun foraatoo làmb ku mu neex nag nga ne ci tele wala nga ne ci kii nii la nii la mais ñun foraatoo ñu lu ñuy wax lu ñuy wax dañ ko xam loolu la rek du question leneen loolu laa ci jublu woon rek moo tax. bu ko xam nga euh, comme sama rak la te it man dama ko bëgg yeneen naa mu am lu nekk.

ma xam ne moom bi muy bëre ak bombardier amul benn moroomam bu bëre ak bombardier te ñoo ñooñu même génération la ma xam ne instant boobu noonu euh, Balla du jël bombardier tamit euh, Modou Lo du jël bombardier te it euh, Eumeu Sène du jël bombardier jamono yooyu parce que moom dafa daan Elton bëre ak bombardier ñoom ñu gis li mu def bombardier moom Tapha boobu tamit. ñoom xam nañ ni tafaatin bi neexul ci la ñu def nag xoolaat tuuti Balla Gaye gis ne tafaatin daan na Elton door na ko door yu métti Balla Gaye préparé nañ nañ ko ko jox ci la combat bi taxaw mook Balla Gaye. Mhm. non avant le combat dama ko ne tafaa mu ne ma ne ko Modou Lo du la jël Eumeu Sène du la jël mu ne ma ah ma ne ko ah ne ko Balla gay ngay bëreel waaye nag yaa ngi bëre koo xam ne bari na ay ruq parce que ñi ko bëgg dafa bari. mu ne ma waaw wax nga dëgg ma ne ko tamit boo ko jëlee Medina bi sa ni nga fii ñëw bari na nga wàññi ko tuuti da ngay entraîné guddi ci tefes yi ut ay punkol ngay fengook ñoom rek guddi gi fi ba tubaab jalaaw tefes la ngay entraîné ak ñooñu rek combat bi ñëw te nga bañ a sampu fële ne Carrefour la fi la gaa yëpp di daje di an eh, fële gaa yi daje ñii dem parcelle ñii dem Grand Yoff ñii dem Pikine ñii dem parcelle ñuy dem euh, Caaroy Tëngéej waaw. Mhm. Mhm. yëpp pour yow ku ne gis na ni mu demee xam nga tamit am na wax joo xam ne waxoon naa ko ci biir combat bi noonu naa ko Balla Gaye dafa am doole loxo su la su la yeggee fenn fi doo rëcc dalay daan te dina xeex ak yow xeex boo xam ne du doon dëgg ci moom mais moom saa yu la rentré da lay daan bu la géddee nga réglé tamit. da lay daan da ngay bu la gëddee nga da ngay da ngay def latéral xeex latéral da ngay génn def un pas benn latéral rek xeex moom comme moom ci un mètre cinquante lay bëre xam naa ñoo ñu bari nag nañ ne lan mooy un mètre cinquante xam nañ ne mesure la foofu la Balla Gaye di bëree. yéen a boobu daal ngay ragal daal un mètre cinquante. waaw ci lay bëree moom Balla Gaye gisoo ma ak Eumeu Sène saa yu ñuy bëree Eumeu de koy xañ loolu saa yi gëddee Eumeu Sène Eumeu Sène day bàyyi kook làmb ji mu gëddaat ko mu reculer doo ko dajeeg moom parce que vitesse am day wàññeeku rythme bi day kase. Mhm. ban kalaaf mooy bi mu mujjee dugg. si Tafa waroon na fee dugg dafay war a dugg kay.